comme comme actualité Sénégal ñu maa ngi la ko doon laaj sànq amoon na loo xam ne nag sa copine wax dëgg yàlla ñu dégg ko ci benn audio duñ ko musul dégg ci benn audio moo benn doom am jokkalante boo xam ne nit ñi rafet duñ ko woon bien vrai que juboo nañu léegi mais euh, maa ngi dégg ne am na loo si dox euh, may ma ci loolu. xam nga xam nga Oumou Sow moom sama sama jumelle la sama lépp la mu nekk pël ma nekk séeréer te ñëpp xam nañ ne kal lu mu lu mu firndeel ci séeréer ak pël. umu euh, nekk ku baax ah Pendo aussi nekk ku baax parce que bi problème bi amee euh, umu soo mënul am problème man ma toog neutre ci dama woo Pendo vraiment mu mu tontu ma tontu bu dal sama xel bu sedd sama xol mu ne ma Guigui coow la rek seytaani moo ñëw seytaani moo ñëw yoo xam nga umu fi ma toll ma ne ko man loolu moo ma jaaxal nii laa ko ko xee ma ne ko Pendo man de umu soo fu muy xeexee nga ñëw xeexale ko. man loolu euh, moo ma moo ma dul bett mais lii tey bett na ma mu ne ma erreur la ah vraiment umu sama sama li wax wax lu baax ci umu saw mhm. bendoo ko baax la man bañ na ko ba moom jour Noël lu juddu en fait donc man nawel sax laa koy wooyee parce que jour Noël lu juddu donc euh, ñi am man ak moom relation yu baax ma doon clipal sama yaay mu ñëw teew ci te kaw clip bi moom umu sow ñoo fa nekk vraiment wàccee clip bi man affaire bi daf ma bett daf ma choqué ah mais bi ma ko oowee wax ak moom mu ne ma amul benn problème ah ma ne ko umu benn lañu dinaa woo umu jéggalu ko te loolu moo am ñoom ñaa ñu nekkaat benn umu aussi bi ma ko wooyee ne ko wax naa waxtaan naa ak Pendo mu ne ma bilaay Guigui da nga baax rek waaye xam nga ne ñu benn umu ko baax la. Mm-hmm. sans façon man li tax ma bëgg ko maa ko xam li tax ma nekk ak moom ci artiste Sénégal yëpp ma tànn ci umu sow di dugg néegam di tëdd lala muy dugg sama néeg di tëdd sama lal. muy sol sama yére may sol yére ñuy solante yére jaaro bi may clip mu sow jaaro dàll lépp la ma indil jox ma te ay or laa la wax mooy sama clip bu yaay bi mu sow moom ma ko indil ma taq ko mhm. donc xam nga ne kooku nekkatul artiste nekkatul dara nekkatul collègue ay sœur lañu en fait mhm. Pendo aussi nekk ku baax te seytaane fu mu xejul rekk lay dugg yàlla def na ñoom ñaar ñëpp delluwaat nañu ci jàmm yàlla na jàmm yàgg Sénégal parce que ay jigéen lañu wax ji dafa war a rafet rek ñu nekk ñu ñëpp benn. Mm-hmm.